Youssou Ndour a ngi noonu ci diggi géew bi Thiatou Daouda Fall a ngi ci diggi géew bi Youssou Ndour am na benn morceau bu verte bu mu teg ci seen diggante Thiatou Daouda Fall am na benn morceau bu weex bu mu teg seen diggante Thiatou Daouda Fall sotti na benn sunguf seen diggante arbitre baa ngi seen diggante laaj na ay gisam laaj na Thiatou Daouda Fall laaj na Youssou Ndour Youssou Ndour waxagul waaw am na bu mu tekki ma ngi koy dugal sa ngemb moom Youssou Ndour bu lebu gi arbitre bi na il est vingt et un cinquante lundi 6 juin journée Modou Baye Fall grand combat Youssou Ndour bu lebu gi Thiatou Daouda de lutte Balla Gaye Ngaaka Daouda Fall moo féete à gauche Youssou Ndour moo féete à droite Youssou Ndour pied droite Ngaaka Daouda Fall pied gauche ñoo nga xoolante ñoom ñaar ku ci nekk sikki nga taxaw na jonn kuy njëkk a dóor wala kan moo njëkk a song xeex wala bëre wala bëre doo xeex maa ngi seen ñoom Ronaldo di seen ñoom Gamou Gueye maa ngi seen ñoom Fils maa ngi seen ñoom Youssou Ndour ñoom ñaar ñu noonu ci digg géew bi di lewato Diatta Rafal wàcc na Youssou Ndour wàcc na Youssou Ndour a ngi di xaar booy bi jóg wala booy bi dal ci kawam Diatta Rafal a koy déglu. ku la nekk mën yaa ëpp doole da a nax Thiatou Daouda na ngemb la yéen a màngaañe est yeewu Youssou Ndour fëgg ngemb la yéen màngaañe yeewu Youssou Ndour da déglu Thiatou jege na ko na léegi waaye demul daa bëgg xeex wala daa bëgg a jàpp cokkaase léegi moom Thiatou Daouda Fall eh, Youssou Youssou Ndour il est vigilant Youssou Ndour il est vigilant Thiatou Daouda Fall ma nga ne ko a dem Thiatou Daouda Fall dafa bëgg a dem bu demee lu fay fekk cokkaas léegi moom Thiatou Youssou Ndour remise na ko Thiatou Daouda Fall dafa bëgg a xeex doon na gauche droite ba doomu daan du jàppante nañu Youssou Ndour loolu la bëggoon Youssou Ndour jàppante bii la bëggoon dañuy xeex wala dañuy bëree Youssou Ndour Thiatou Daouda Fall Youssou Ndour doon na peekil Thiatou Daouda Fall jàppul moo ngi koy xëcc Thiatou Daouda Fall Youssou Ndour Youssou Ndour moo ñëwoon ginnaaw Thiatou Daouda Fall loolu jaakaar lool Thiatou Daouda Fall Youssou Ndour Youssou waaye Thiatou Daouda Fall jàppul fenn Thiatou Daouda Fall jàppul fenn Caatu Daawda Fall Youssou Ndour ku nekk yaa ngi ndengeñ Caatu Daawda Fall fa mu ndengeñ teg na booba ca put door na dooraat eh, Caatu Daawda Fall Youssou Ndour eh, Caatu Daawda Fall lu mu bëgg a def da koo bëgg a songale est-ce ba eh, da daan da koy daan Caatu Daawda Fall daan na Youssou Ndour Pape Daouda Fall da koy daan Thiatou Daouda Fall da koy daan xale bi bëgg na bëyee bi Thiatou Daouda Fall daan na daan bi Thiatou Daouda Fall bëri na daan na Youssou Ndour vite fait bien fait xale bu nekk na boppam.